laa yuksiru du baril minal istidaanati ci leb kamala yu daw yinu nit nga xamee ne du leble kathiran lu baree bare yeji bu dana war añ yedd fa xam mu fay duyoo na xaw ay borom fii awqaatiha ci seeni waxtu ida kasurat ndem bari na duyoonu foo borom ya wala mu yeta makkante jékkuwut mina daf yi ca fay ga tooxlinu dana déclaré almaxkamatu tribunal bi almaxkamatu tribunal ba at tijaariyatu bi ko jóg commerce iflaasaxoo ak fayitam ak pertam daal tax gisu dana saisir wala dana bloqué maxallaxoo palaasam ba at tijaariya bi ko jóg commerce tabion dana jaay al bidaaxata marchandise ma tuwasihuha dana ko séddale xalaa asxaabi duyooni ci waroom bor ya nee na kat boo dee jaay ak jënd nga war a am ak xereñ ci seet foo toll sa liggéey nu mu demee na ngay moytu nag lépp lu bare bari maanaam jël rek marchandise jaambur yi fu ne rek nga jël fa teg ci sa jaayukaay dee ko moytu ba sax lépp xaalis mbaa yu mel noonu daal xeeti lépp daal moom dee ko moytu te it buñ ne bul leble mukk waaye bul di leble lu bari bu leble mënta ñàkk del xam ne ngay lebal ak la ngay leble nu muy toll ba doo ca gaañu fexeel ba bor boo war a fay ba àggee ci waxtu wa nga fay ko su fekkee nag commerçant bi dem na ba ay borom ëpp ko doole mënatu koo fayati kon tribunal bi tribunal bi aju ci wàllu commerce maanaam bi lijjanti lu aju ci wàllu yaxantu day déclaré ne commerçant boobu fayit na perte na daal di bloqué fam daan jaayee boole marchandise ma jaay ko ñu seet borom bor yi kenn ku nekk loo ca mën am rek nga am ko ja ashor uhibbu danaa sopp almahallaati place ya at tijaariyata yi ko jóg commerce alxasanata tartiib yi aji rafet ak jekkal wala nga ne alxasanata tartiib yi aji rafet ak ràñsale wala ak organisé laa uhibbu duma sopp ak tartarata coow lu bari wax ju bari maxat tujjaari ànd ak commerçant yi wala musaawamata ak waxaale ga xalal asxaari ca prix ya muy njëg ya waxi bu danaa sopp ashra a jënd ga minal maxallaati ci béréb ya daatil asxaari ya di waroomi prix al maxdoodat ya di ñu fixé yooyu ñu ràññeel ne fii la yam kenn du ko weesu kenn du ko manqué itam mu ne bérébu jaayukaay yi nga xam nañ koo defar ba mu rafet ba jekk lépp tegu ci yoon daal dama koy bëgg lool bëgguma nag di coowanteeg commerçant yi wax ji mujj bari lool waxaale yi ñuy wax ak waxaa diwee loolu daal bëgguma ko fi ma gën a taamu daal mooy jaayukaay yi nga xam ne dañuy fixé prix yi nangam nangam lay jar boo dikkee te man ko jën daal dem soo ko mënul bàyyi waaye amul yokk amul wàññi ak taw siyan fii zaariyatin ci ab koñ min zawaaya mal abil madrasati ci koñi fawukaayu école bi infarada wéetoon na muy berwoon na rafiqaani ñaari camarade yatanaa xachaani di discuter xawla mihnatay waaliday himaa ci kéewum yaari métier yi seen ñaari waajur man nga ne ci wàllu ñaari profession yu seen ñaari waajur wa kullun te kenn ku ne min xumaaj ñoom ñaar yuriidu dana bëgg añ yekkoona mu nekk aboohu baayam al mufaddala di kañu gënal fa haasa kii xaadilun mooy xaadil ibnu taajirin doomi ab commerçant la yataxaataa bob day jëfandikoo bay alxuboo bi jaay xeeti pepp yi wal faakihati ak furu wi wal xudaar yi ak lujum wa daaka kookee najibun mooy najib ibnu hamidin doomi ab liggéeykat la maahirin bi aji ñaw yastaxilu kook day liggéey fi ahadi masaani il xaddaadiina ci benn ci usine tëgg yi wala ci benn ci atelier yi tëgg ya la maqtarabtu ba ma jegee min humaaj ñoom ñaar da awaan yi woo nañ ma ñoom ñaar ila inta yi jëm ci sama joxe rëy yi sama xalaat fa ajabtuhuma ma tontu leen ne leen inni naka man laa astatiixu duma man daalika loolu illa baada an astamiha ndare gannaaw bu ma dégloo ila xasanaati kullin jëm ci baax baaxi kenn ku ne min mihnatay waalidaykuma ci ñaari profession yi seen ñaari waajur yi wala ci ñaari métier yi seen ñaari waajur yi dafa am benn côté ca fa ñuy foyee ca école ba ñaari camarade ñaari moroom toog fa di discuter ci kenn ku ci ne la baayam di métier woo kenn ku ci ne jàpp ne la baayam di métier woo moo ëpp solo moo gën moo gën la bàyyi ko ca des moom di métier woo kenn ki xaadi la tudd xaadil moom baayam day ab commerçant di jaay xeeti pepp yeeg fruit yeeg lujum yi ki ci des mooy najib baayam day ab liggéeykat bu xarala di liggéey ci benn ci atelier yi tëgg yi ki nekk li nag mu ne ba ma leen jegee dañ maa woo ne ma kaay jox nu sa xalaat ci li ñuy wax ma ne leen faaw rek kenn ku ne wax ma baax baax ya mu gis ci métier yi waajuram suñu àggale yéen ñaar nag ma seet ba xam nu may tontu waaye mënumaa tontu te kenn ku ne ci yéen ñaar waxut baax baax yi am ca métier waajuram fa qaala haadil inna waalidii naka sama waajur yaa xasiis yi yow sama ku foor ki yu qaddimu dana présenté mooy dana jaay ak taxaama ñam wa lil xa ilaati ñeel famille waqad taqilu amaan sax nga fas ne ànn ànn mina sëhli naka bokk na ci aji yomb taxaatiyat tijaarati yóotu commerce wala jëfandikoo commerce wala métier woo commerce taxaataa jot diku na masar mi taxaateen rek ci la bàyyi ko fa haza lii wahmun ak defe la waxata unte njuumte la it ngir xalat taajiri war na commerçant bi añ yattoo fa muy wër al buldaan réew ya wa yetta joshama te muy toggoo mashaqa safari jafe-jafe ñi tukki li yashtari ngir mu jënd al bidaaxata marchandise ma al jayidata may aji baax allati ma nga xam ne yaxtaaju dana aajowoo ilayha jëm ca moom al ahali waa kër yi al ahali ñu ko jamhu innahu naka moom yattasilu dana jokku bi umalaahi ci ay client fil bilaadi ca réew ya al ajnabiyat yey étranger yastari ngir mu jënd maa la nga xam ne taxtaaju dana aajowoo ilayhi jëm ci moom bilaaduhu ay dëkkam xaadil mooy njëkk a wax ne ko man sama baay commerçant la famille yi day ñëw ci moom bu leen di jaay li ñuy jëfandikoo ci wàllu lekk mais nag xëy na mën ngaa yaakaar ne jaay jënd yomb na muy commerce waaye ku defe loolu juum nga ndax commerçant bi daa war di wër réew yi ak dëkk yi di toggoo coono yu métti métti ci tukki yi ndax mën a xàmmee marchandise ma gën a baax te fa mu nekk ñu ko fay yittewoo faaw itam day am contact man day jokkaloog client yi ci réew yi ci des ndax ñu mën koo jaay xeeti marchandise yi nga xam ne fi mu nekk soxla nañ ko waxin dama yekkatulu saa yu bare al istiraadu importé ga importé mooy jënd ji bitti indi fa inal asxaara naka prix ya tax bitu danañu wàcc mooy danañu daanu wa yataharradu tey soflu at taajuru commerçant ba lil iflaasi jëm ci fayit wal xasaarati ak perte alxusuma ga gën a rëy mu ne marchandise yi ñu jënd marchandise ya ñu jënd di ko indi mu bàyyi ko bitim réew bu ñu xasee bari rek faaw njëg gi daanu bu njëg gi daanoo nag moom mi ko jëndoon mën na am du jaay sax lu tolloo capitalam mu daldi fayit perte perte gu rëy rëy laysa bistitaaxati ayin kaana nekkul kat ci man manu kenn ku ne ayus bi mu xëy rek taajiran di ab commerçant laamixan buy aji ràññiku wala buy aji siiw lamaxa melxati na ci la bàyyi ko laamixan di aji melxati waaye mooy rek ku siiw ku ñu xàmmee illa baada an yataxassasa ndare gannaaw ba mu spécialisé woo wala nga ne ndare gannaaw ba mu ràññikoo fii madrasati tijaarati ci école commerce waxaasaate lii maa mooy la nga xam ne fa alahoo def na ko waalidi sama baay mu ne bul defe ne kenn ku ne mën ngaa xëy benn bis rek di commerçant bu ñëpp xam xam jalooreem bala ko kenn man rek day dem ci école ba ñuy jàngalee commerce féete ci wàllu commerce mooy spécialisé wu ca wàllu commerce ga ba am ca diplôme bu kawe kawe mu ne loolu nag sama baay noonu la def fam baraati gaar najibu najib li aadilin ñeel xaadil waxaala mu ne ko kulluma lépp li nga xam ne xultaxoo wax nga ko saxiixun aj wér la wala an saa duma fàtte it fadla waalidika ngëneelal sa baay xale naa ci noonu laakin na waalidi waaye nag sama baay xuwa moom ëllësi mooy ka nga xam ne yu tariqu dana dóor ak martu mbaa dana defar alxitaxa pièces ya alxadidiyata yi ko jee ngu ñuul allëti ya nga xam ne yaxtaaju dana aajowoo ilayha jëm ca ñoom annaasu nit ñi innahu naka moom yuqaddimu mooy joxe sikkatal mihraasi aleeru machine ba allati aleer ba nga xam ne ya suq dana xotti alfallaahu baykat bi bi waa sitatihaa ci ak diggaleem sadral ardi kaw suuf si waaye asalaamu te muy bay alxuboo ba xeeti pepp yi kay yuqaddimahaa ngir mu man koo présenté li waali di ko ñeel sa baay at taajiri ki di ab commerçant innahu naka moom yas na aw dana liggéey almahaawila pikk ya ay xeeti pikk wal fu oosa ak sémmiñ ya wal manaajila ak sartu ya wala ngóobaan ya innahu naka moom yu qaddimu dana présenté linnaasi ñeel nit ñi al abwaaba bunt ya wal mafaatiha ak caabi ya wa qutbaana nawaafisi ak banti gris fenêtre yi bant yooyu ñuy def ay gris ci fenêtre yi innahu naka moom yes naaw dana liggéey mu'zamal qitahi li ëpp ci pièces yi allati yi nga xam ne tustaamalu def na leen jëfandikoo li tabxil xudari ngir togg lujum ya wal xuboobi wal xuboobi ak xeeti pepp ya allati yi nga xam ne tushtara def na leen jënd min indi waalidika mu bàyyi ko fa sa baay wa kama anna waalidaka nit nga xamee ne sa baay taxarraja génne na min madrasati tijaarati ci école commerce fa inna waalidi naka sama baay taxarraja génne na min madrasati sanaa'ihi ci école métier muy xarala ya wal funuuni ak aar ya fama ra'yuka ana luy sa xalaat najib dafa tontu xaadil wax moom itam baax baax yi mécceem baayam te mooy tëgg mu ne xaadil li nga wax lépp nangu naa ko lu wér la xam naa ne sa baay li muy def muy commerce mën nu koo ñàkk lu baax la ci noonu waaye sama baay nag bul fàtte ne mooy ki nga xam ne lépp lu aju ci leen gu ñuul te nit ñi ko yittewoo ñoom ñoo koy defar mook ñoom bokkal métier te ne ko mën ngaa tàmbalee ci aleeru machine bi nga xam ne baykat bi moom lay bayee ba mën a am pepp mi nga xam ne moom la sa baay di jënd di ko jaayaat sama baay ak ku mel ne moom day defar aleeri machine yooyu di defar ay xeeti pikk ay xeeti semmiñ ay xeeti ngóobaana ki sartu ak sax xeeti bunt yeeg caabi yeeg fenêtre yeeg bant yi gris yi ñu def ci fenêtre yépp daal ci gàttal tam mu ne ko mën nga caa boole ne ku jënd ci sa baay xeetu pepp mbaa lujum mbaa leneen kañ koy togg jumtukaay ba mu koy toggee rek sama baay ak ku mel ne moom moo koy liggéey moo xam cin la moo xam leneen la te it ni nga waxee ne sa baay dafa jàng méccam commerce ci école bañ koy jàngalee ba génn ca sama baay it noonu la daa am école ba ñuy jàngalee xeeti métier yi xarala yi fa la jàngi moom itam ba génn ca kon nag seetal bu baax luy sa xalaat ci loolu mu wax xinda mastanfada ba nga xamee ne jeexal na kulun képp mina raf yi xëy ni ci ñaari camarades yi maa la nga xam ne fii joo upati yi nekk na ci tungaaram maanaam nag dañ koy firee rek fii joo upati yi nekk na ci ab saagam tungaar ci cosaan mooy defukaayu fett yi ku masaa di fett fett ya muy fette lam koy def moo tudd tungaar baat la nag bu ñuy baree jëfandikoo ci xibaar yi fii mu nekk jublu ci rek génne na la ñu yoroon lépp ni ki bu dee lu muy wax wax na ko lépp man nga koo firi rek maa la nga xam ne fii jo ubati yi nekk na ci ab saagam wa baatu teg naa yadday sama yaari loxo xalaa katifay himaa ci seen yaari mbagg waxultuma wax laxumaa ñe leen ñoom ñaar boobu tasiman mbir mu may aji mooñ ne leen laqad taxaa daltuma yamoonte ngeen yéen ñaar yamoo ngeen képp yaa xas yi zayya yéen ñaar ñi foor ci man fii mu faa balatikuma ci seenu gënalante diggante seeni ñaari waajur fa inna naa naka nun jamiixan mboole sunu bi xaajati nekk nañ ci aajowoo ila taajiri jëm ci commerçant bi kama an na naa naka nga xamee naka nun bi xaajati nekk nañ ci aajowoo ilal xaamili jëm ci aji liggéey ja li an na naasa ngir naka nit ñi muxtaajun aji aajowoo la baadahum lenn ci ñoom ilaa baadin jëm ci ñenn waxum te ñoom jamiixan mboole seen yataawanoona danañu dimbalante di tasxiili maichatihim ngir yombal seenug dund wasalaam ki nga xam ne daa ñëwoon fekk ñaari camarade yi werante ci kan moo ci ëppale solo ci kan la ci baayam ëppale solo métier da leen ne woon na kenn ku nekk wax ma dégg mu ne nag ba kenn ku ne waxee la muy wax lépp àggal damaa jël sama ñaari loxo teg ko ci seeni mbagg ñoom ñaar dafa mel ne kon dafa jël ab loxo teg ko ci mbaggum kee jël loxo ba ca des teg ci mbaggum ka ca des ne leen nag ne mën a leen nag te booba maa ngi mooñ ca dëgg-dëgg da ngeen a yemoo képp-képp kenn gañuwul sa moroom bu fekkoon ne da ngeen di bëri nga ne kenn yóbbul ndam ku ci nekk daal ñu waxee lu métti mbaayam amee solo mëni su ko wax ne ko kee moo ëppale mëni su ko wax ne ko bàyyib kee moo ëppale solo sa métti mbaay waaye nag kon nan xam rek ne yàlla binde noonu ñi ci kaw suuf kenn ku ne am na loo mën te keneen mënu ko kenn ku nekk rek bu taxawee ci la mu man dund gi daldi jàppandi daldi neex loolu nag yàllaa ko bindee àdduna ndax métier ma gën a suuf fii mu nekk boo ko dee seetlu bis boo ko yittewoo rek xam ne moom métier ya féete kaw ñoo yemoo di ab duus rek bu feesee te gisuñu la ko ngacc waa kër ga luñ mën a am ci gis ku leen ko defaral rek daañu ko def xëy na xamuñu woon nam amee njëriñ waaye bis bu kooku ñëwee nag ba defal ko daañu xam ne doomi aadama yàlla lañ binde noonu kenn ku nekk rek la ko yàlla féetale moroom aajowoo na ko almuhaami avocat muhimmatul muhaami mission avocat maanaam li avocat war a def li ko tax a jóg kafiran lu baree bari maa lu jéggi dayoo ci bari taqaxu lay xew xilaafaatun ay juyonte bay na naas diggante nit ñi li asbaabi ngir ay sabab tijaariyatin yu ko jóg commerce aw li xilaafaati wala ngir ay wuute uxraa yeneen alxilaafaatu xeeti wuute yi ak tijaariyatu yi ko jóg commerce toosalu def na leen àggale ilal maxaakimi jëm ci tribunal yi ak tijaariyati yi ko jóg commerce wal ixtilaafaatu xeeti wuute yi al uxraa yo ca des kal qatli niki rey wa darbi ak dóor wa salbil xuquuqi ak rékki aqi jaambur yi tu at ji danañu àggale ilaa maxaakimi sulhi benn jëm ci tribunal yi yow noonte wal jinaayaati ak kuur dasiis yi maxkamatul jinaayaat mooy kuur dasiis laysa bis ci taaxati jami hinnaasi déet mu nekk ci man manu mboolem nit ñi ak yu bixiroo ñu feeñal xuquuqahum seeni droit yaxtaajoona danañu aajowoo ilaa ashxaasin jëm ci ay jëmm mu saqafiina ñu di ñun culture maanaam ñu am xam-xamu culture culture nag daa bokk ci baat yi nga xam ne jekki-jekki dogu ne mooy nàngam xaw naa jafe waaye mën nañ ne ku yàlla may xam-xam bu ne ak xeetu yeewute wu ne nga am cib cër rek boo ko boolee nag muy yeewute bu xaw a daj loolu moo tudd ak saqaafatu di cëpp nag bu dee ci gouvernement yi ñoom dañ ko jëmale ci lu aju ci wàllu aada ak cosaan di ko tuddee di ko tuddee wisaaratu saqaafa waaye mu saqaf bu ñu ko waxee rek mooy koo xam ne am na yeewute gu daj ndax leen lu ne am na ca lum xam jàpp su ko boolee téye nag muy lu mën a wéyee mbir mu ne mu mën caa àtte ci xam-xamam ak yeewuteem li ñu daa fi xoo ngir ñu défendre an walis ñoom xawulaay ñii nag xum ñoom almuhaamoona ñoo di avocat ya lu tax avocat di am mu ne nit ñi moom buñ bokkee dund faaw ñi am ay juyoo daa ñu juyoo ci wàllu commerce mën nañoo juyoo ci yeneen yeneen yu bare bare juyoo yi nga xam ne ci wàllu commerce la am na ay tribunal yoo xam ne ñoo koy àtte yeneen xeetu juyoo yi ci des mel ne rey wala dóor ak yu demee noonu am na tribunal yi boppam maxkamatul jinaayaat muy tribunalu tooñaange yi ñu koy wax cour d'assises mooy àtte àtte yi mel noonu mën naa am nag ñu dem ci tribunalu yéwénoonte waxtaan wax foofu danay am lu ñu tuddee qaadi sulh juge de paix àttekat boo xam ne mooy toppatoo wàlluk yéwénoonte mu ne nag ndekam du nit ñëpp ñoo mën a layal seen bopp wax seen ak seen droit ba ñu xam ko faaw kon ñu aajowoo fekk ñu am xam-xam ñu yeewoo yeewu ñu féetal leen googu wàll ñu layal leen waxal leen bañ jot seen àq loolu nag moo tax avocat mënta ñàkk ñooñee ñi fekk nag ndax ñuy dimbale leen layal leen bañ xam seen àq jox leen ko ñoo ñoo tudd ay avocat saqaafatul muhaami yeewu teg avocat wala nga ne culture avocat xalaat taalibil muhaamaati war na étudiant méccam avocat an yadxula mu dugg madrasatal xuquuqi école droit ya wa haasihi te bile école laa taqbalu du nangu illa tullaaba ndare étudiant ya allazina ña nga xam ne yaxmiloona danañu yore shahaadatal baccalauréat diplôme bac bi qismayha ci ñaari xaajam yadrusu dana jàng tullaabul xuquuqi étudiants droit muddata arbaxin sanawaatin diirub ñeenti at fu may raafiqu topp dana àndoonteeg ahaduhum kenn ci ñoom baadal muhaamina lenn ci awokaa yi wa yaxduru te muy teewe jalasaatil maxaakimi jataayi tribunal yi muy séance yi tribunal yi muddata talaasi sanawaatin diirub ñetti at uxraa yeneen fa yasiiru te muy mujj nag muhaamiyan di awokaa avocat ban niveau la war a am ci xam-xam ba nekk avocat mu ne faaw mu dugg li ñuy wax madrasatul xuquuq école droit yi te école boobu faaw bala nga caa dem da nga am diplôme bac ci yaari wàllam yépp moom diplôme bac da ngay am ñaari wàllam yépp faaw nag nga nekk ca école boobee di école droit diirub ñeenti at soo ci génnee itam da nga àndanteeg ñenn ci avocat yi di di fekkee jataayu tribunal yi diirub ñetti at su ñetti at yi àggee nag ngay door a soppiku doon avocat maata yadrusu lan lay étudier al muhaami avocat bi lan lay jàng rek lañ jublu yadrus dana jàng al muhaami avocat taariq al qaanuuni histoire luwa wal qaanuuna ak luwa ba al rumaniya bay ko jóg romain yi wa qaanuuna desatiri ak luwa bu constitution yi dustoor mooy mufrad mi dasaatiir mooy jamxu ji mooy réew mu nekk nañu tëralee seen doxalinu réew dañ koy bind ci mbind mu leer wax nit ñi ñu joxe seen xalaat buñ ci àndee ñu wéyal ko muy nañu doxalee saat réew ma loolu moo tudd dustoo ñu ko tuddee constitution dasaatiir nag mooy jamxu bi wa qaanuuna tijaarati ak luwaa bu commerce wal qaanuuna ak luwaa ba almaliya bi ko jóg finance maanaam luwaa bi aju ci wàllu alal wal qaanuuna ak luwaa ba adduwaliya bi international maanaam luwaa bi dox luwaa bi dox diggante réew ak réew ci diggante réew yi adduna yi wa qaanuuna al axwaali al shaxsiyati ak luwaa bu statut personnel mbiri jenn jëm dina yi aju ca moom mu jagoo ko koy tudde statut personnel am na lu waabu ci aju wa qaanuunal xuqubaati ak luwaabu pénalité yi qaanuunul xuqubaat ñu koy wax code pénal daañu ko wax qaanuunul xuqubaat daañu ko wax qaanuunul jinaayaat wala al qaanuunu al jinaa'iyu wa qaanuunul baxriyati ak luwaa bu aju ci wàllu géej wa qaa wa qaanuunal jamaariki ak luwaa bu duwaañ yi luwaa duwaañ wal qaanuuna ak luwaa ba al idaariya bi administratif wa xayra dalika ak lu dul loolee min al qawaaniini ci xeeti luwaa yi avocat faaw rek mu war a xeñtu luwaay yi mu tudd ak yeneen yeneen yeneen daañu ci sutaate loolu nag gis nga ne xeet luwaay yi mu tudd ni ñu baree waaye yooyu yëpp la avocat bi war a jàng murafaatul buhaami peleedeg avocat mooy murafaat bi firi yëkkateente maanaam mooy layonte ci kanam yoon ni ko avocat yi defee indama yusmahu saa yoo xam ne def na permettre def na may lil muhaami ñel avocat ba bil murafaati ci ak plaidé fil mahkamati ci tribunal ba fa inna fa innahu naka moom yatasallamu dana jël ad dahawa procès yaxduru dana teew ila maktabi yi jëm ci buróom ba ahadu tarafayni kenn ci yaari wàll ya al muxtalifayni aji wuute al mudda'i te mooy aji kalaame ja awil muddaa alayhi wala kañ kalaame yadrusu dana étudier qadiyata muwakkilihi affaire client ba jayidan bu baax a baax man nga ne qadiyata muwakkilihi procès aji délégué mooy client bi ko jël ngir mu layal ko rek yafhamu dana xam bu baax jamiha tafasil mboolem détails ya ci aju yartakisu dana sampu xalaa nuqtatin wala yartakisu dana institut dana dogu xalaa nuqtatin ci ab point xuquqiyatin bi ko jóg droit li yebniya ngir mu mën a tabax difaaxaxoo ak défense am xale yaa ci kaw point boobu yati dana dikk ilal maxkamati jëm ca tribunal ba ma xam wakkilihi ànd ak aji délégué am ja mooy client am yalbasu dana sol al thawba tani ba al aswada bi aji ñuul